thank you la àndeesam. wa andi nañ ko comme niñu indé indee buur ah. def na liñ wara def lepp waj na ni mo wara wajé waajee ànd ay mbokam ak ay am du jàmmam ñi ngi fi gis ñi la am du ko ñaan du ko ñaan yalla yalla may ko ndam def na liñ wara def lepp waaw. gëj a wi sa sax jàppoo ne mën ci combat bi. gëj a mënul feeñ ci sëm ndax même bu gëj a mi nga entraîné tout temps même bu gëj a mi nga entraîné chaque jour sëm mi nga lepp amul lu muy wut ci lamb combat day taxaw mu dem def mission accomplir rek mais moom mi ngeeg lépp pare na démb tey soog a ñëw. muy bëre xale boo la day bëre day xeex. ndaanaan ndaanaan koy daan. waaw comme ni ma doon waajalee rek. waaw kom ni ñu doon waajalee yeneen combat rek lañu waajalee la la joor adversaire la comme yeneen adversaire rek liggéey nañ si lu si war a liggéey am na suñuy mbokk fu ñu daan war a dem daal dem nañ fa di ñaan yàlla arbitre sifflé yàlla may ñu ndam. mais dañu bëri ndaanaan mu mën a bëree mën a xeex. ñoo ko gën a a doon ndaanaan. sam xeesaa bi moo jaaxal yi rek mbër du xees mbër lépp entraînement la ak jom ak physique Zeum xale bu ndaw la sunu morom la Zeum ñoo defandoo lépp ñun dañoo fooy bëri Parcelles lañ dëkk mën nañ bëri mën nañ xeex bu ñu feccee bu neex. ba tey ñu nekk ci mukaay Lat Dior fekk fi Youssou Ndour champion bi yu ñu ngi leen nuyu. maa lay fay càndum do si loo nekk bàyyi am jàmm di baalu àq ñëpp di baalu tëb ci bi ñu képp koo xam ne tooñ naa la naa maa ngi lay baalu àq di ñaan ñëpp am jàmm. fan nga toll si waajtaay. waaw maa ngi sant samay mbokk liggéey rek comme dab rek waa nekk si wàccaay rek waaw. ma yu si jël mbër boo xam ne athlète dafa os saa yu ñëwee day indi état. waaw liggéey rek xool nekk suñu ginnaaw rek liggéey loolu manoom làmb moom ma jël kii jël kii lépp si yem comme lu ma am pare combat laay pare samay combat rek amul leen loo xam naa si pare leneen. adversaire boo am teel pour nga mën ko affronter foog nga am physique bu doy. waaw dinañ liggéey déggul ma la dinañ liggéey ànd suñu war a liggéey bu baax bu metti dinañ gis liggéey incha allah. Lat Dior nan ngeen ko ah Lat Dior boobu ba tey ñoo ngi liggéey ànd moom di liggéey mu nekk xale ñoo ngi koy ñaanal tey bisam bi nga xam ne moom lañ jublu yàlla loxo si yàlla ndam Mor Sakess ndax tey ñaari combat ba ñett at Alaaji mbër maa ngi koy ñaan yàlla may ko nekk na si bi moo mbër waaw du di ay kat yi waaw. doon sa combat de foo mujjee. non sama combat taxawagul nag maa ngi déglu gars yi rek booba léegi ñu ngi dox ay combat mais dara taxawagul non non. ko Lat Dior li ñu ko indee mooy nii rek ëmm ko mu préparé li mu war a préparé lépp xale la mi ngi ci yoon mi ngi mi ngi bëre di daan te yàlla def ko mu war a bëre grand combat fii dañ koo indi pour mu daan zëm jëli bu jëli bu leer jëli bu gaaw ñu ngi koy ñaanal si barke Seydina Mohamed. mais mu jël adversaire boo xam te ñu bëri dañ ne waru ko woon jël moo ko mag ci làmb moo ko ëpp expérience. waaw mën na ko mag si làmb te du ko mën nit mën na la see jiitu te ëpp la si expérience xam nga moo aussi mais garab si kaw lay fekkente làmb boole na leen ñu ngi war a bëre tey dëggal boobu rek mooy des amul leneen dëgël si boobu ñëw jàpp ko daan waaw pare nañ fépp waaw. arbitre mu ngi leen di consulter ñoom ñaar laaj ay zizam arbitre laaj na leen ba xam pare na sifflé na ci diggante ñaari xale attention Zolion daw na jàppante ak Lat Dior amul round d'observation Lat Dior Zolion jàmbate nañu ñoom ñaar ñaari xale yi ñu ngi jàppante. Lat Dior ak Zeum ñu ngi jàppante ñoom ñaar Zeum ak Lat Dior attention Zeum mi ngi door Zeum ak Lat Dior Zeum mi ngi door Lat Dior ak Zeum ñu ngi bëre ñoom ñaar Lat Dior mi ngi fayu Zeum ak Lat ñu ngi jàppante ñoom ñaar Lat Dior ak Zeum jàppante nañu ñoom ñaar Zeum dafa mel ni bëree Mamoun la andi am am se attention ak Lat Dior Zeum mi ngi dóor waaye Lat Dior mi ngi jàpp ni tekk di ko déglu Lat Dior ak Zeum ñu ngi jàppante ñoom ñaar Lat Dior ak Zeum ñaari xale yi ñu ngi jàppante Lat Dior mi ngi tekk di ko déglu Zeumb ak Lat jàppante nañu ñoom ñaar ku nekk di lalay pexe jéem a nax sa moroom ci biir bëre Zeumb ak lajoor Dior mi ngi dóor Zeumb ak Lat Dior Lat na léegi Zeumb fayu Zeumb ak Lat Dior ñu ngi ñoom ñaar attention Lat Dior am na lu muy tànn bañ na attention Zeum zongale na ko Lat Dior bañ na ñaari xale yi ñu ngi bëree la ilaha illallah ñaari xale yaa ngi bëree nee naa la combat amateur la Lat ak Zeum ñu ngi jàppante di bëree Zeum ak Lat Dior Lat Dior mi ngi dóor ci suuf mi dóor perkit Lat Dior mi ngi dóor attention Zeum am na lu muy tànte ko Lat bañ na jugaar nañu jàppante Zëm ak Lat Dior attention Lat Dior wet bi muy maye mbaa na laylay lala ñaari xale yi ñu ngi bëree Lat Dior ak Zëm ñu ngi bëre Zëm mi ngi dóor attention Lat Dior attention Zëm ñu ngi jàppante yi bëree ñoom ñaar Lat Dior fayu na Lat mi ngi dóor attention Zëm am na lu mu Zëm la ilaha illallah Lat Dior Zëm nee naa champion là. ce n'est pas pour rien il est surnommé le balagay numéro le balagay de Sam c'est un garçon au gros potentiel xale le boo xam te ni ndaanaan la mën na bëree mën na xeex yu jom fulla ak fayda Nek xale bu am mbolo également bi mu combat bi ciolu li bëri na ci ñu bëri ni war ko jël Je moko ëpp moo ëpp doole ci lamb ak expérience min ma càndum maniko nam. ko so mi na fenn ci lamb foog nga daan ay ndaanaan daan ay champion Tay loolu la xalé la boo xam ne jom wane fula bëre na bëre bu reuy mom la Dior qui fait part des espoirs de l'école de lutte Balla qui est qui est en train de confirmer tout le bien conduit de lui xalé la boo xam te ne na boppam ci benen anam mom la Dior le Balla de Sam qui est en train de continuer sa marche victorieuse la Dior mi ngi noonu am see bu doon xalé boo xam te ne na bëre bu reuy daan jël bu reuy mom la Dior mi ngi noonu xale la boo xam te ne liggéey na wàcc Drac Vision batay ñu nek ak vainqueur bi la Dior mbër ñu lay félicité di la nuyu. waaw maa ngi leen di leen nuyu yéen tamit càndum di bëggee bu baax a baax a di la jox sa wàcc waay bu wér waaw. mais nga jël combat coow bëri woon ci tey mais tey bëree wuree bi nga bëree boo ci ñëwaat. waaw gi nga càndum ñu dañuy nekk école Balla Gaye di liggéey ku mel ni Mbës ak Lamine Faye dañuy yor entraînement ah ñoo nekk ak gars yi man manqué wu ma dara barke alxuraan xam nga manqué wu ma dara boo lu ma soxla sama grand cheikh saw barki alxuraan lu ko booy songee mu nekk ci di ko def xam ñooñu boo leen amee dara manqué woo benn sens boo ko ëppee ay mbër da koy exploité wër na alxuraan koy sant yàlla du loo xam ne sama jàmmaar la de dama koy sant yàlla nekk ak ndaw yoo xam ne bëgg seet saw pression parce que jël nga adversaire ñu bëri waroo ko woon jël keroog sa open press yaa naan ñu bëri dañ la xaw a ñeewantal noonu dundee loolu waaw man ay xale laa nekkal li may tegoo barki Serigne Touba Mbakke néew na mbër bu ndaw mu koy tegoo mais teg sama bët la càndu boo ñëwee suñu kër da ngay a xam ne damaa war a liggéey dama ko bëgg a tabax comme mbëri ni ñuy tabaxee wallahi wa te dama koy def si lamb laa koy defee ni moom arbitre dañu prix sa adversaire yor la jàpp la mais ni nga bëreeg moom waaw lam yaakaar moo amul ñëpp nee nañ moom moo dàq bëre sëb maa ko dàq kii maa ko dàq bëre foofu wallahi maa ko dàq bëre maa ko ma juum moo tax damay def mais Zeum moom xam na ni sax barke Alxuraan soxla ma ko sax du ma ak moom sax di lamb. dina ko daane boo ñëwaat ci site bi. waa site bi dañoo bëre mu kor ma dóor ma ay coup ma sigi dóor ko coup jàpp ko di ko bëgg a jongle muy forcé par moom mbas ko waaw. waa di waxaat gars yi ñooñu waajal taxaat comme nii sama lépp moom moo am combat day bëre mercredi sama lépp la dugaar du ma ko wax kenn sama lépp la ni ñu jàppalee la joor nu ko raw bëgg naa ñu taxawoo ko ko si bisam boobu. nga nekkoon ci ay jafe-jafe dafa retour bu triomphal tegre deux victoires léegi fan nga jëm. waaw fi ma jëm mooy sama course ku ma boole rek ma jëm sama course yi kuñ ma booleel ma jël man amu ku may tànn si làmb wallaahi bo ku ñëw ñu bëre limal ma qualifié dima numéro 2 na ñëw ñu bëre amul combat na ñëw ñu bëre takk tamit na ñëw ñu bëre takk na ñëw ñu bëre pare naa pour bëre moom barke yàlla abu njaase tamit na ñëw ñu bëre abu njaase bu ñëwee ñu bëre wallaahi pare naa pour lépp barke seen